jotaay ba pare dañu wàcc fi maa sha mais du Macky juge juge juge yi nga xamante ne moom moo yor suñu sartu réew tey lépp am si réew bi ñoom la parce que lii Ablaye Wade waxoon na ko premier ministre bi waxoon na ko kon kon lii warul bett kenn parce que lii mu ngi nii ñu joxe résultat amul ku war a tàcc nit ñi dañu mel ni seen bàyyi dee wala seen yaay lii dafa ruslu tey yi dafa waroon nekk jantal très bien ah mu tëggaat làmb ji mu botti Idrissa Seck wala Sonko loolu la waroon def mais tey bu taxawee fii nit ñi koo xool mu ngi mel ni papa ma gaa moo dee